li waral conférence bi mooy comme ni ko sama camarade waxee en français moom lay jéem tekki ci wolof ñun waa Y'en ñun waa FRAPP coalition citoyenne le peuple SNP Sénégal notre priorité luttons contre l'indiscipline au Sénégal nitu dëgg valeur ak Africa First ñu woote woon daje bi pour déjà def benn suivi de cas par rapport ak altine bi passé conférence bi ñu defoon dañ fi annoncé woon ni dinañ def distribution de flyers fépp yàlla def ci jàmm ñu dem fële ca ville distribuer flyers yi sans problème li waral loolu mooy CEDEAO dafa waxoon état du Sénégal li nga xam ni moo jëm ci parrainage nañ ko dindi ñu gis ni élection yi passé laajuñu kenn parrainage élection yii di ñëw ñu dugalaat ko ñu gis ni mooy loo dafa nekk loo xam ne dafa injuste maanaam du dëgg du yoon ñu nag ñu ne du ñu seetaan loolu parce que sénégalais bu nekk tey bëgg nga yow sa bopp nga toog fële ca assemblée di décider ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee situation yi ñuy waxtaanee ci dëkk bi. pourquoi tout le temps même bopp yi rek la ñuy gis président assemblée nationale. maa ngi gis réseaux sociaux ñi ngi tooñ ndax dafay bokkaat wala du bokkaat suñu maam bi pourquoi tout le temps même bopp yi ñooy nekk foofu alors que ni jeunes yi ñi ngi fi ay nit yu leen gën a compétent ñi ci dëkk bi mais mënuñu am chance su ci ñi nga xam ne ñooy décider pour le Sénégal c'est injuste euh, ñun nag ñu jaay suñu baqan lu mu leen jaral rek ñun dinañu ko jaral euh, moo tax déposé nañu benn lettre man sax du ma ko woowee lettre demande d'autorisation dama koy wax comme wax nga ko ci français yëgal ma dama ko ci nasa ci ci ci ci wolof yëgal ma dama koy wax ci français par courtoisie lañ ko def parce que loolu la ñu yoon may constitution moo ñu ko may tout citoyen am na droit manifester am nga droit am loola metti ci dëkk bi nga ñaxtu ko soit nga wax ko walla nga dox walla nga xeexe ko neneen léegi nag yëgal nañu préfet ñoom nee nañ dañ soxla deux à trois jours jour ouvrable pour wax leen ko yëgal nañ ko ci délai yi nga xam ne may nañ ko léegi nag listes mi ngi seen loxo mais man li ma mën a wax mooy ñi ne ñu acca dem leen dinañ manifester ñi ñu ni déedéet du ñu manifester dinañu manifester lu mu leen jaral ak ñun dinañu ko jaral préfet nag ni ko sama camarade waxee léegi moom mooy jël ay responsabilités am parce que par tous les moyens par A be dina génn kenn mun ci dara euh, woo nañu démb aussi di wax nañu changer itinéraire bi maanaam fi ñu war a jaar euh, fi mu bëgg ñu yemale ko mooy place de jóge jógee place dem ba rond-point RTS ñun lu ñu bëgg mooy jógee place de jaar fi ñu war a jaar yépp rond RTS Médina ba egg ministère de l'Intérieur moom écourté na ko maanaam gàttal na ko pour ñu jóge obélisque dem rond point RTS ñu ne ko loolu mënul nekk fi ñu déposé itinéraire fi ñu war a jaar foofu la ñuy jaar xanaa ñu jàpp ñu tëj mais dinañ génn te dinañ dox donc euh, di woo encore pour bañ a guddal tous les citoyens képp koo xam ni Sénégal ñor na la problème yi Sénégal ñor na la yaa ngi sentir ni vraiment citoyen sénégalais nga nga am loo xam ne mën nga ko defal sa dëkk. ñëwal nga rejoindre ñu demain à la place de l'Obélisque à partir de 15 heures ñu dox doxu ñaxtu ba ministère de l'intérieur du ma guddal nag defe naa ni.